Assalamualaikum, mbokki taalibe yi ñu nuyu bax te len ziar bal wax di euh, war suñu kàddu rek ko ne xam na ne fan yi wésu euh, génn nañ def benn vidéo bo xamanténé euh, da am ñu doon naxarlu ci kàddu nga xamné ne mooy abdar Abdou mi Samb yu dikati won ci yéne barap nga xawon ci am benn tolluwaay boo xamante ne waral ñu gën def vidéo am nañ ci doon ñaawlu yalla dogal nak génnaat na ba jàkkaarloo kilifa yi ba saako ko njëgal ci kilifa gu mag yi xam nga moo fi nekk ma Cheikh Rahane Fall si am di Fall mu si Modou Mbène ñaan suñu borom yàggal ko fi euh, boobu ak tey ñoo ngi ci lu yaatu yaatu lu jëm ci kàddu yooyu nga xamante ne jot na fee jaar leen suñu kilifa yi nga xamante ne itam moo boole yi def ci biir kër Cheikh Modou Abdoulaye euh, jokkal nañ ci ay kàddu ba ñu yaatal ci yaatu yaatu ba ngir ak déggoo ndax kër gépp day benn xëy na mbir yi ni mel du mën a ñàkk di am waaye saa bu jàllee itam ñu waxtaan ci ngir lu gën rafetal rek ndax ñoo bokk sëriñ bi ñoo bokk fiñ bokk fiñ jokk eh, rawat na Cheikh rami taxoon mu di wax itam ba tey ñoo ko bokk rek kon xëy na wu murit la rek boo xamante ne waraloon na ñu génn ngir am luñ ci naqarlu waaye lépp itam duñ ci naqari itam noonu la noonu la ko war naqare ndax Euh, tanamuñ ko ci kër gi ëpp luñ ko ci lenn xëy na euh, mbir moo mel noonu moo waral mu génn defaat beneen vidéo rek nga xamante ne euh, dañuy xam ne daanaka lii daal suñuy mbir ndax kenn xam woon wax baaxoon ko it nag ndax ay daari bi lañ rek jëf rek moo war ci kër gi waaye du wax kon ni ma ko waxee ci bu njëkk bi itam yëkkatiwul suñu kàddu ci ndigalul kenn xëy tolluwaay la woon boo xamante ne suñu bopp la rek loolu yi dañ tolluwaat ngir génn leerale ko ñëpp rek xam ne kenn waxlu wuñ si waaye suñ tolluwaay bopp la di tax ñu génn defaat vidéo bi mooy tuub bi nga xamante ne tuub na ko ci kanamu kilifa yi mu ko war a def te yàlla sama borom yi nga xamante ne moo nu boole sàkk sax yenn saa yi ñu def njuumte ci kanamam du fes te bu ñu ko jégalu mu jégal kon ñu nag ay taalibe képp lañ rek bu sëñ bi jégalee foofu dañu war a génn rek ñu itam di suñuy leeral murit yëpp xame ko noonu ndax ay taalibe rek lañ kon noo jégal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ngir ngay mën di am suñuy vidéo saa su ne bësal fii ñu bind abonné boo noppee nga bës cloche notification ngir ngay mën di am bépp vidéo buñ dugalati ak Ndiokhoba TV ci chaîne bi te rekk lay dox